waaw na ngeen def. ñooñu ça va ça va bien. waaw ah, sëñ bi la andi andi andi. joxe joxe kay. li bari na de. am sëñ bi. sëñ bi dafa jàpp. Oh. wax wax wax wax xoolal wax affaire bi mooy jënd dégg nga. incha allah waaw waaw mu mel ñu ñu firil ko ndogu ko. Ah. waaw waaw. incha allah wax dem. ok baax na merci beaucoup merci. ok merci. sëñ bi mooy sëñ bi. mooy sëñ bi. ah. mooy sëñ bi. mooy sëñ bi. ah sëñ bi mooy sëñ bi. Kardeşim lütfen. Messi boobu jërëjëf Messi. ah si bëri bëri. day jëkk day jëkk day jëkk dañ lay dañ lay jëkk de day jëkk day jëkk day jëkk. ah xaaral dégg nga. fii daa ay sàcc. non seen sàcc li nga xam ne ñuy def dañ ciy def bu baax ba kenn ñuy àgg kër ga. waaw waaw waaw. def ay sukkur koor mooy ay muuru koor. waaw man maa la wax. waaw ku ma jox nga jox ko. waaw waaw comme wax jox ko dama jox ko dégg nga. moom oto bi.

fi ndogu dégg nga jërëjëf yàlla na ah. dëkk ma seet si waa kóoru tey bi nan la nar demee jàng boo ko xamee rek nga wax man fu toll nii damaa yéemu maa ngi woo Mariama pour mu ma mais dara Ibrahima ah. jongu waxi nga parce waa Italie kenn mënatul a génn man sama connexion un mois baa ngi ni jeex na fu ma jëm ah, ma nga xam ne ci connexion laa dëkk maa bëgg connexion sama xol lii ndogu tey rek pour ma teg ko rek problème la. sànq rek maa ngi am ku ma woo pour di ko ñaan xaalis mu naan ma yoruma man. temps yii dëkk bi dëgg corona bi la. doom bi naa trop yàlla baax na. office. ça va. ça va yéen ñu toog. ñooñu toog ça va bien. ça va bien. une deux. une deux. bàyyi bàyyi yéen woor ngeen. waaw waaw. ma koy yóbbu toog ngay laaj ndax woor nañ. damay leen jox leen jox leen. ma jox leen jox bàyyi ma yóbbu ko paa bi. jox jox ko. comme woor ngeen xaar leen. jox ko. Eh. jox ko. tey da nga baax. waaw doo dolli. bon lii moo si léegi lii dañ koy yóbbu papa dañ koy yóbbu papa. aywa merci waay yal na leen yàlla. yal na leen yàlla ciao ciao. itam I love you. yow dégg nga lii. aywaay waay maam yàlla. ah ñu ñëw baax waay. aywaay. daanaka dañu naan dafa réew mais réew de xam nga léegi dem jëndi connexion. jëndi connexion man damay taal ma may ma rek ma ñëw dem yéen bu ngeen woorul it xanaa du ngeen yëg naaj bi mën num de ah yëg nañ naaj bi de eh. yëg nañ naaj bi de <laughs> kaay man man yow laa gën a yërëm xam nga lu tax ma yërëm waa toogal toogal waaw waaw man kon yërëmoo ma eh xam nga lu tax ma yërëm la yow da ngay bàyyi sa dënn bi ci biti rek naaj bi di ci bàyyi ba ci biti dugal naa ko ci biir ana dënd bi muy nii dënd baa ngi nii. waaw waaw waaw tëj bu tong bi da nga yaakaar ne kaa bàyyoon ji bi de. day tëj bu tong bi. a gëlee wala yàlla. waaw du ma ko bàyyi ji bi de. waaw su ma ko bàyyee ay ko sàcc ko sàcc nan lay fay <laughs> ah. du kii. nga mos a tase ku la dóor nga du da ngaa jël dóore rek def def ko moomeel. waaw di nga mës a gis ko la gën a. sama sama teggee sama dënn foofu kaay kenn jël ko moo ko moo ko fekk foofu war naa ma koy doo alal. woo ko dugalal sa dënn bi laa wax nga koy tëj bouton yi. yow yow yow yow soxla nga di. ah. il faut dof yoraal wiru yóbbu ko faj. waa ngeen ma rey ma rey leen yéen. rey rey li ma lay wax. ah ni mu mel néeg yëpp bu duggee ci douche bi day évacuer teel évacuer moom mi moo du def ndox nga moom yi moo ci def def ba pare def ndox kii gis naa ko day def ndox kii xanaa waa déglu maa jur yéen ñaan ñëpp waaye kii kenn du gis ay ay awraam kenn du gis ay ay yëf yu bonam kii dafa am sutura ci boppam kii buy dox ci bàyyi yaramu neenam bi ci àll bi nga naan kenn du gis awraam la may alwa waxuma alwa laa wax alwa waaw noonu lañ koy rafetale waaw mooy mooy li li yàlla def ci yow te warta génn lu génn waaw moo tax nu nu wut nu wut tubay ak yére waaw sana sana léegi gis nga tubay waaw xam nga tubay yére waaw waaw waaw aman ah, a ah, ah, man awa awa alba amaka kon jeex na bàyyi ko nangu ko taa am awra bu mu am awra jeex amoo ko yow ñu indil la surprise bu ngandee lan la fii dañu indil ay problème nii lan la ci suñu benn giir bu baax lañ demoon bu jox ñu suukar koor léegi nag mu lay jox sa wàll incha allah waaw yow yéen suñu papa nga suñu xarit nga. waaw amuñu amuñu ko jóg yow. waaye mbaam gàtt na waaye ci jur gi la bokk de. waaw waaw loxo si ndox la woon loxo yaa ca bëri rek mu ñuul. waaw waaw. waaw man xam naa ne lu ngeen am di ngeen ma ko jox. waaw rëccuwuma benn yoon li ngeen ma fi ma toogoo nii nii yàlla xam na ne lu ma ndogoo aw ma ko woon maa ngi doon maa ngi doon xalaat. Eh. nan la sama sama onde yi laa doon sànni fan fan laa war a dem. waaw nañ ko ñoom la ñoo la ko jox. waaw waaw yal na leen yàlla taxawu. amiin amiin amiin waay amiin amiin. waaw yal na leen yàlla xaalis xaalis xaalis xaalis xaalis bañ la woon de. maanaam. ah wax waxuñu ma wax wax wax wax léegi déglu kay bu ma déglu déglu kay. su su suñu benn kii suñu benn xarit. waaw moom moo ñu jox suukaru koor léegi nag après ñu indi la sa wàll. wàll de bu ñu ko tuddee kon am na leneen lu ca tegu woon. waaw waaw wàll wàll da daa mel lu ñu séddoo. ah wàll wàll. bu dégg wàll man sama sama sama saafara. dama kaa jëndee meew wax. cent franc nga am. <laughs> waaw cent franc yéen a góor a jël cent franc jox ma ñaar téeméer. lii lu rëy la ci man. jërëjëf yaa ko moom. waaw yaa ko moom. yal na leen yàlla taxaw ana sa bos man garaawul man am problème man boo amee rek mel ni am naa. waaw la yow ak cent franc. li si des dañoo génn ci mbedd bi xool ay sukaru koor ay muuru koor ay asaka yooyu yëpp def nañ ko ci mbedd bi. waaw waaw am nañu indi la sa bos. ëppoon ay ay ay ay ay xaaral ma ay ay ay lii cent franc lii cent franc lii lii lii ñànku waaw bay fee laa jëm waaw foofu laa bëggul nga dem fa léegi bañ fee doy bu fa dem doy na waaw waaye des na de lan moo ko doon séddale ci yéen man naa ko doon séddale xam moom xamul xaalis damay bañ ñu nax ko après may may séddale suukaru koor jox ay muru koor ay lépp joxe nañ ko après indi la su papa da jooy yooyu man dama dama leen ñaanal yàlla rek. Eh, yàlla na eh, leen yàlla wóor kii rek amin déedéet. <laughs> Eh, sama numéro dama jox ko sama ndomba set fa taamu bay day jooy. dama dafa ndomba set fa taamu. waaw kon amoo ay géer nga dem say géer ñu jox la ñun suñu géer ñooñu jox ba pare. dinaa dem ci Ablaye Diop xaas dina ma jox. kan suñu Ablaye Diop dina ma jox. kooku kooku kooku nee na nee na nee na dafa dañoo nekk confinement dafa tëju dafa tëju doo ko gis sax doo ko sax gis. dinaa dem ci sëñ Ablaye Diop xaas dina ma jox kooku lii nag moom duma leen ko delloo ndax lu waay am ci ñaqam may la ko. waaw ah. may ko yàlla waaye boo amee sa ñaq boo ñëwee may ñëw. déplacement yu bare bare bare waxoon naa bul ko ko wax. da nga dof fa yow yow yaa ko waroon da nga am. loolu kese am. wax naa ko la waxati ñaw wax naa ko la xam eh, xam ma mën ma na ma si taat yi nee na nag de. ak yow sa taat yi a rëy dof bi nga doon bopp yaa eh! ma xamal ma ma bañ lool. bopp yaa ko